di am mbégte lool teew fi tey ziar si le porte-parole euh, des Mourides euh, Serigne Bass Abdou Khadr waaye fekk fi suñu woy jur sëriñ Bass Poroxaan ñu koy ziar bu baax a baax di ziar mboole kilifa yi fi teew teewaay bi nag eh, dañ ko def ci turu son excellence président de la république Bassirou Diomaye jaxaar fay mu jaarale ndigal li ci premier ministre Ousmane Sonko yàlla dogal ñi dénkuñu wàllum yoon yi lépp lu jëm ci dem beeg dikk bi mu am ay liggéey yoo xam ne santoon nañ ñu ko fii ci Touba ngir mu yombal dem beeg dikk bi muy fukk ak juróom benn yoon wala ay carrefour wala ay rond yoo xam ne waroon nañ ko defaraat ba mu ñoŋ ñu dénkoon liggéey bi benn ci suñuy bànqaas te njiit li nekk fii di Mamadou Ndaw ci ak directeur régional bi ñu def ci liguey bu mucc ayib ba yalla dogal na ne fukki yeeg juroom ben yi mën na ne fukki yi na te yere ñett yi gën ga yag talata mu pare inshallah amna yenen yo xamne nak dafa jëm ci dem bek dik bi motax ñu taxaw ci fexé ba saxar yi mëna wat ñew juggé ci ay barab yu waaye ci ay njëkk yoo xam ne dina yomb ci taalibe yi te yàlla dogal na ne loola tamit yemb na xam ngeen ne transport bi li muy laaj ci dem beeg dikk bi sécurité def cee bokk ndax bëgg nañu góor góorlu donte accident yi bëri na lool ñu ci sàkku ñaan comme ni ma ko waxee xalif général sànq rek mu ñaanal réew mi bu baax waaye ñaanal ñu ci réew mi waaye tamit ñi woo taalibe yi ak mbooleem ñi nga xam ne dinañ fëx jëm ci Touba ah ñu daw ndànk respecté code de bi ngir mën a yegsi ci jàmm màggal ci jàmm dellu ci jàmm benn accident bañ a am incha allah ba tax na Dakar dem dikk wala Sénégal dem dikk bi nga xam ne bokk na ci yenn ci kër yoo xam ne ci ñun lañu topp sant nan leen tamit ñu jàppale taalibe yi ci dem beeg dikk bi moo tax jël nañ lu mat 243 maanaam ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñetti bus yoo xam ne dinay dem di dikk jóge euh, Ndakaaru ci ay barab yu wuute di ñëw Tuubaa di dellu ci njëg goo xam ne wax dëgg yàlla euh, yombal nañ ko tamit autoroute bi tamit xam ngeen ni euh, walla autoroute yi fu nekk la nit di jóge di ñëw moo tax faw ñu aar ko ba tax na euh, wax dëgg yàlla ministre de l'intérieur ministre des forces armées waaye tamit ak suñu directeur bi nga xam ne moo yore autoroute yi am na liggéey bu mucc ay buñ ci def ngir fexé ba yoon wi nit ñi mëna respecté vitesse yi waaye mën moytu dal yenn daw yu ëpp yo xamante ni mëna jur ay accident jël nañ ci nak ak ay matuwaay ak ay xaral yu yes yo xam tamit ku ci def naka su dul nonu mëno recc ndax ci ar askan bi la bok kon euh, manam dal lepp lo xamni ci yoon yi la ak ci dembek dik bi Eh, yaakaar naa ni eh, matuwaay yi ci war yëpp ak suñuy service jël nañu ko te xam naa ne dinañ ko matale ci li nga xam ne eh, moo nekk ci suñu responsabilité la ca des nit ñi la moo xam ki moom oto moo xam ki dawal oto moo xam ka cay dugg bu ku ci nekk Euh, doxalee na mu war a doxale cig dal cig orma am naa yaakaar ne duñu am benn jafe-jafe ci yoon yi ndax kenn mënul lekk lu weesu sa wërsëg ba tax na ñuy sàkku mbàkke ngeen ñaan bu baax a baax ci yoon yi ndax lañ ca war a def ñu ngi koy def kem kàttan ak yeneen yuñ ci mbébét waaye xam na ne tamit réew mi soxla na ñaan ci wàllu googu kon ni ko Cheikh Mahoudou rek kàddu yi dalal jàmm lay doon ak cant ak ngërëm di yóbbante nuyoo ci sa kilifa yi nga xam ne ñoom nga fi teewal di président de la république Bassirou Diomaye Faye di ko ñaanal yan bi nga xam ne suñ boom teg na ko ko te yàlla suñ boom wax ci alxuraan doonte ci geneen fànn la sax allahu alamu xaytu yajcalu risalaati yi waaye yan bi mu ko yan yal na attan ba lam yéene yóbbu ko fa ci lu baax mu àgg fa di lay yóbbanteem nuyoo ci premier ministre Ousmane Sonko ak mboolem gouvernement bi yëpp di leen sant bu baax ndax cant gi it fiñ ko teg rek mooy yéene ji xam ne gis nañ ko ci yéen ndax euh, li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax ne niyatul mu'mini ablahu min amalihi yàlla balaa fay jëf day fay yéene bu noppi kon nag ñun amul dul bis bi te gis ne bi ngeen toogee ba na gëne Sénégal gépp ñoo leen seq Sénégal gépp fa ba fa gën a sori ñëpp ngeen yërëf ñépp na ci seen wuroon waaye cër bi ngeen jox Tuuba xam nañ ko te Cheikh Mamadou Farid Mbacké daa wax ne ak mbaa ak mbaadoola baaxut ndax mbaadoola bu la defee du ko xam boo ko defee du ko xam waaye nag bi ngeen fi toogee ba nage ni daal yitte ak cofeel gu rëy ak ak gu dara desul lay gis seen ci kon faaw ñu seere ko yow itam ñu lay ñu lay ci beere sa cantu bopp ndax nage ni daaw rek am na ñoo xam ne ñu ci jotaay wax naa fekk nañ ko ba nga fi jugee rek laa leen di wax ne El di ni ma fa gisee xam naa ne ko am ci man ak cofeel la bi ma ko gisee laa ko xam ci moom. loolu nag ba na génnee noonu laa ko gisee ci yow gisit sag mën a rafetal keroog bi fi président bi njëkkee ñëw gis ma gis ci sa taxawaay ndax ràññee diwuma loolu itam ma ak sa yeneen xarit yu bari yoo xam ne jëkk na sax ngeen di toog ci jotaay bi waaye ma xam sa yéene ci réew mi ak sa rafetal ak sa bëgg jàmm ak bëgg xol yépp ànd loolu nag dara ëpp ko solo kon nag ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal lii ñi nga xam ne aw sumb bu yaatu lañu teg ko ci sa yàlla na da ci yàlla defal ndam ba liñ ci yaakaar ba séntu ko ci yow nga def ci du ko ëpp na nga xam ne daal sant nañ la bu baax gërëm nañ la cant yee gërëm lii ci sa jëf lañ ko gis ba ci waajtaayu màggal gi jàmp na xat na léegi laa ko wax suñ Basiiru léegi ma ne ko yéen tollu gu leen ci waxtu jëf nit ñi rek xad na xëy na ñoo yàkkamte waaye ku xam état ni muy doxee li ngeen defe ko li ngeen def sax da da ko yéem ko xam ko xam ni état doxe doxee li ngeen defe ko dana xam ne góorgóor dëgg ngeen ko defee waaye du lu ngeen man kon nag yàlla moom ndegam day fay jëf yéen door fay jëf nit bu yéenee ba fa mën a bu jëfee ba fa mën a yem la ca si yéenam da koy mottali kon gis nañ ci seen taxawaay li leen ca waroon ca taxawaay lépp matal ngeen ko kon cant ak gërëm ak ñaan yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa moom mi ngeen mi ñuy defal bis te li ci waay jëf rek mu fay la ko yàlla na leen dimbale defal leen ndam ci seen liggéey ba yéen itam ngeen am ci ndam ndax ndam di mooy ndamul Sénégal mooy ndamul réew mi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaatu lasi fi kun